bu leen kenn nax fi ngeen tegoon seen tànk foofu la ñi ñu jàkkaar lool amuñu yéene tabax réew mi seen discours yëpp yàq la seen discours yëpp xeex la seen discours yëpp jaxase la kon ñun munuñu yem ak ñoom mani man maag Jean Baptiste mi ak docteur Malick Diop wax na ko léegi ca Bennoo Bokk Yaakaar ca Bennoo Siggil Sénégal def nañu 12 ans d'adjoint au de Dakar Jean def nañu 12 ans d'adjoint au maire man ak moom mais mairie Ndakaaru bu dee ñii lañ ci yaakaar Médina du jag ndax maire Dakar ji Barthélemy jaas projet yi jëmoon ci Médina yëpp dindi na ko yóbbu ci yeneen commune dama bëgg mu leer xool leen budget maire yi Ndakaaru lépp lu ñu affecté woon Médina Barthélemy effacé na ko ku voteel Barthélemy Diaz bugguloo Médina parce que ma wax leen ko dama ni lépp loo xam ni jëmoon na Médina Barthélemy Diaz ko ci budget Médina budget ville de Dakar Barthélemy Diaz moo jiite liste bële mais ba ko waa Dakar jiitalee au lieu mu xalaat recruter doomu Ndakaaru Guy Marius Sagna la xalaat xaw ma colonel lan mais xanaa boobu daa fàtte ni xaalisu Ndakaaru salaire ku nekk ci ñoom mënoon naa jël fukki xale mani bu leen ci dara nax de suam waar ji lamp yi mujjee tàkk te ville indi ko ci ndakaaru du Barthélemy Diaz xam nga lan la Soham Wardini bi mu fiy jógee dafa am lu bare lu mu fay yooyu mu fayoon nag bu ñu koy livre day tombeek Barthélemy Diaz doon fi maire waaye du moom parce que bi fi toogee léegi appel d'offre amagu fi bu mu fi toogee léegi amagul benn dépense ci journaux yi boo leen gis bu ville de Dakar def kon ci commune yu bari ci ndakaaru tale ya fay fay defar lu Soham bàyyi woon ak ndakaaru la làmp yu bari yuy tàkk lu Soham bàyyi woon ak ndakaaru la terrain jaraaf bi subvention bi Soham Wardini la kon mairie ndakaaru Médina daan na am plus de huit cent secours ci tabaski ren amuñu sax lu mat trois cent parce que Barthélemy neen day xeex ak waa Médina nee na Médina da ngeen ko fi dàq woon moog waa Sonko moo tax day xeex yéenu yéen ñun nag ku ñu bëgg ñu bëgg la ku ñu bañ ñu gën laa bañ fulla nag ni ku lamb yaa tey daagul ndax Macky Sall nag moo yëg Medina ñu yëg ko Sall moo xool ni ma xëyu ndaw yi indil liste yi ñu jël xale yi Medina yi feera bi mu jël ci deux cent personnes indi cinquante cinq milliards ni Medina ni kat Medina dama leen a naw jël sunuy jigéen tey Ndeye Cissé def ko conseil économique et social Ndeye Seynabou conseil économique et social Khadinaar chargé de mission à la présidence Seydou Gueye ministre Cheikh Ba DG Bamba Fall ministre mais kii lan la ñu deseel mais kii lan la ñu deseel mais kii ñun Macky Sall ñun ñoo ko deseel moo tax monsieur le président rien ne serait de trop pour qu'au lendemain pour qu'au jour des élections nga dégg ni la Médina à plus de quatre-vingt-dix pour cent docteur Malick Diop wax leen ni Médina du match ndaxte bu ñu doxantoo fan yii rek dañuy dem jàppale ji commune yi ñu àndal ndax Médina amul match te kat. Médina du ñëpp fii daagu de am na ci loo xam ne du waxu micro de waaye ku nekk xam nga kër gu am xaj kër gu am xaj dof bu ne xam nga ko loo dof dof dof di nga xàmmee kër yi am bundu xaj bundu kër yi am xaj di nga ko xàmmee kon yéen dañuy ànd léegi. dox dox bu sew tey nag dañoo ni jigéen ñi ak xale yi ouverture la meeting yi ci topp lañ leen di jox parole meeting yi ci topp bu Cheikh Aye mercredi ci Blaise Diagne angle 31 ñu ne mën a jox xaleem yi ak jigéen yëpp bu Seydou Aye def noonu njàccaar bu ñu aye waa capital ak Medina ci xool def noonu bu Mimi ñëwee nag. ñoon kon ñun ñooy waa Médina te Médina mooy Médina kon boo xale yi dem leen ngeen jëli carte électeur yi desoon convaincre leen seen moroom yi ci programme bi ñu leen di jox jigéen ñi waxtaan leen ak seen moroomu jigéen ñi commerçant yi wax leen ni marché ti leen fii ak ñaari at kenn dootuñu ñee élèves yi na ngeen xam ni lycée ngeen doon jooy fal Macky Sall mu def ñu député ñu défendre suñu budget ñu am lycée bi loolu lañ ci yaakaar